ndaw si moom ma nga xewee ca quartier Grand Médine ba ne ca diwaanu Dakar mu nekk sujet boo xam ne nag xel yeeg kenn ku ne yaa ngi koy waxtaanee ndax ñaaw quartier popule bu Dakar boobu dëkkandoo yi jamono bii ñu ngi mer ba futt ci soxna si di wuyeeti turu Aba nga xam ni dafa tàngal ndox mu tàng ba mu jër mu jël gune gu am quatre ans di doomam ñeenti at xooj loxo ya ba loxoy gune gi yépp simmiku ndax nee na gune gi dafa sàcc ab téeméeram mu nekk benn indignation général boo xam ni tax na ba képp ku yeewoo ca quartier boobu rek ñëw nga daal ni soxna Sile du soxna soo xam ne am na xolu yërmande moom Abba doomu ginnee ko Conakry la ñu bari sax ña ngay laaj ndax wér na ndax lii kuy ànd ak sa sago doo sañu jël sa doom ji am ñeenti at di ko jiiñ sàccum téeméer ba pare xooj ay loxoom ba mu rëcc ko mbir mi nag mbokk yi ma nga mujjee ca taabaru procureur de la république ndax nag gannaaw ba xibaar ba siiwee way takku der ya fare ca sûreté urbaine bu Dakar ñoom day def nañ ca seen liggéey ba daal di arrêté jëkkëri ndaw sa ndax ndaw sa dafa daw jëkkër jay wuyoo ci turu ab ab ashba moom lañu ñu teg loxo bu sukkandikoo ci xibaar yi nu am mbir mi daal affaireu maltraitance la boo xam ne dafa ànd ak violence ak voie de fait ak coups et blessures volontaires le 8 août la amoon nag bis boobu mbokk internet ñi nga xam ne ñoo dëkk ca immeuble R R plus ba nekk foofu nga xam ne couple guinéen ba fa la ñu dëkk ñoom ñaar maanaam H ba ak soxnaam si di A ba boobu nag BAH la kon bawu Conakry la mbir mi nag li ko siiwal mooy gune gi daal ñoom dëkkandoo yi dañuy toog saa su nekk rek di dégg es ba es ba la gune gi tudd ñeenti at di yooxu yooxu yu foor yooxu yu metti sax naan wuy sama loxo yi xale bi di yooxu di yooxu maanaam ni muy liyaare rek da ngay xam ni wuy sama loxo yi lay wax ndax day wiccax loxo yi di cat di cat di donte ñeenti at mu doy waar lool image boobu di frappé dëkkandoo yi ñoom comprendre ñu exact li lan moo dal xale bi ci kaw loolu nag kenn yëg ni xale bi kër dafa victime ci acte barbarie kooko ni kon jot na ñun ñu sol sunu daal ndax kon euh, soxna si dina faat doom ji te nit ñi bu ko faatee seeni responsabilité mën na caa tegu ndax mën na leen a jàpp ay complice wala ñu seetaan ba mu def jëf ju ñaaw ji ci niveau violence boobu soxna si toll ak doom ji ca la euh, soxna si di wuyoo ci turu a a nekk président relais communautaire bàjjenu gox foofa ca Grand Médine am ku ñëw déy ko ko ni ko am na soxna soo xam ne de torturé na doom ja ba lakk ñaari loxo ya ba doom ja mënatul dara mu ni ko ah mu ne ko nii la deme xale ba daal ñeenti at la am gox bi solu dàllam ni ah loolu de moom musiba la ñun nag comme dañ ñoo teg ñu ne ay relais ci gox yi am na ñoo xam ne ay bànqaas yu bokk ci ministère de la justice la man dina ànd ak yow ñu sol suñuy dàll dem foofa noona joytu ko ca la nag dem ànd ak ndaw si ko xibaar ñu daal di dem ci service de l'action éducative en milieu ouvert ñu gën leen a xam ci AEMO ba ne ci Grand Dakar ba nu yeggee ñu fekk fa ndaw suñuy wax Colette ND Y Ndiaye ñu ni ko daal dafa am ndaw soo xam ni wala dafa am couple boo xam ni couple bala ba boobu nag ma bamtuwaat ko B A H la noonu lañ koy bindee bokkut ak comme suñu ba yi ñuy bindee B nga xam ni soit pël ngay doon wala tukulóor mais ñii xëy na ay pël lañu mais pëlu guinéen ndax B A H noonu la ñuy bindee seen seenu sant mu ni leen daal dafa am couple boo xam ne ñi ngi dëkkee ginnaaw terminus BRT bi. ci de change bu Grand Médine côté boobu lañ dëkkee xibaar bi nu am nag nee nañu benn soxna buy wuyoo turu Aaba dëkk ci ca ca immeuble moom moo jël loxoy doomam ju góor ju am ñeenti at tàngal marmetum ndox ba mu tàng jër ba boo gisee marmet bi da ngay foog ni day togg ñànk tàng wala day def gom ngir waa jël ay yéreem ba marmet bi baax mu jël ndànk loxoy gune gu am ñeenti at sóob ca yeb ca ci diir bu gàtt maanaam ay simili ba loxoy gune gi rocc ko ba simmi loolu la ndaw sa def am nañ ci nag preuve yu leer ndax nee nañu ki nu nit li nee na ndaw si dafa jiiñ doom ji nii dafa sàcc téeméeram xale bu am ñeenti at service ay moo ni leen ah xibaar bi ngeen ñu indil doy na waar de ñun ñi nga xam ne dañoo ne bànqaas boo xam ne dañuy veiller ci ay tuut tànk ngeen indi ñu xibaar bii faaw ñu remonter information bi mën a xam ki def jëf ju ñaaw ji ban intention la amee ba def lu ni mel ndax ànd ak sagoom ndax soxor la ndax jigéen la joo xam ne nangu wute muñal jëkkëram mu jaarale ko ci doom ji ndax benn euh, nu ko tubaab di woowee sax maanaam boo bëggee fayu Euh, ndax loolu ndax loolu ndax loolu kenn ku ci nekk di poser question mbir mi nag ñu ni acte de barbarie la ak souffrance ci gune gi ndaw si nga xam ne moo représenté AEMO moom mu daal di nag ni faw ñu ubbi la machine judiciaire ndax lii yoon rek moo mën a teg dossier bi ci table ji ñu xam ndaw si lan moo waral lii ca la procureur de la république daal di dugg ca dossier ba ndax ban ko ko yëgalee dafa daal di yebal ñi nga xam ne ñoo fare ci commissaire Bara Sankaré ba ne ca sûreté urbaine ca Dakar ñooñu sol seenu dàll daal di wuti Grand Médine ngir amal ab enquette ci jëf ju ñaaw ji nga xam ni àdduna bépp ñu ngi koy dégg rawatina diwaanu Ndakaaru ca la policier yi nag wàcc si Grand Médine ca kër ga ca domicile couple guinéen ba nu ñëwee ñu fekk ndaw sa daw bu yàgg aba ndax aba ba ko ay dëkkandoom jéebaanee rek ca la solowu dàllam ni ruseet daw ba fa jëkkër ji tay jëkkër ji waaye takku der yi ba nu ñëwee dañoo daal di jël jëkkër ji mepp yóbbu ndax comme ndaw sa dem na faaw ñu jël jëkkër ji ban ko placé garde à vue pour nécessité d'enquête ca la nu nag waa ji dégager ay euh, respons wax ay responsabilité euh, pénale ci mbir mi waaye nag investigation yi maanaam gëstu yi nga xam ne amee nañ ko mu xóot loolu ca la euh, waa ji ni moom day dafa jékki-jékki gis doom ji commencé loxo yi di li loxo yi de futt ba set wicc waaw di xëpp ndox rek mu laaj soxna si soxna si leeralu ko foofu la yem ci justice mu waxaat ni mbir mi moom soxnaam xamut ban intention moo tax mu def lii gaa yi gën a xóotal enquête yi mu daal di dem a dem a dem nag ba identifier boppam identifier ndaw si ñu mën a identifier sax ka nga xam ni moom moom moo moo moo wasaare xibaar bi di ko yuyoo ci bees yi nekk ab dëkkandoo moom dey nee na daam bi nekk na koo xam ni doy na waar waaye samp nay xël way takku der yi fare ci Bara Sankaré daa di jël ah, ki nga xam ni moo di daam bi révélé loolu déglu ko daam bi nag nee na kii rakkam la xale bu jigéen bi daw biñ ko dégloo moom nee na ko tey ñetti semaine nee na day faral di dem ci frère am bii maanaam goro la sax ci ci xale bu jigéen nee na ca la remarqué ni seen jarbaat seen doom mi ngi amee lakk yu métte métte mett ci loxo yi nee na yaay ji daa di koy réeréer ni ko li tax ma def ko lii man maa ko def li tax ma def ko lii dafa sàcc sama téeméer policier yi daal di déglu am ba mi nga xam ni rakki jëkkëri ndaw si la te moom yem na ci xibaar bi laataa seenu dëkkandoo sax di dem moom ba mu cay mais dénoncé wul waaye jëkkër yi euh, ab dëkkandoo moo dem ca fa nga xam ni moo di bàjjenu gox ba dénoncé ko bàjjenu gox ba ànd moom dem ca service ay moo dénoncé ko waaye kii nag moom mi ngi door a wax ndax comme enquête bi dafa poussé gars yi bëgg a xam enquête de voisinage bi ñu ko gisamalee ñu daal di ñu daal di xam lool loolu nag dañuy taxaw rek jàngat ni est-ce que ndaw si nekkuloon règlement de compte comme ni ko tubaab di waxee ak euh, borom këram waaye bi nga xamee ni itam enquête bi poussé waat na ndaw si ni seen goro bii de amul benn problème ci wàllu xel seen jabar ji jabari magam amul benn problème ci wàllu xel nit la ko wér plek moom soxna si daal ni beesi ni itam liy ndaw si témoin man mën naa koo témoin ñàkku nag ni beesi moo leen yoole waaye nag li ci mën a xew moom moom ndaw si daw na daw bi nag comportement am la ndax bari na ay fitna yi muy def day samp xel dëkkandoo yi ndax dëkkandoo yi dañ koo commencé di ko menacer ndax jëf ji ñaaw ji mu def doom ji ñépp mere ko kenn ku ne jëlal ko mere soxna si ba mu dawee yóbbaale na tur woo xam ne du fay ba mukk ndax jëf ju ñaaw ji mu def waaye polis day mag ngi wéy di ko wër ca diwaanu Ndakaaru ak bépp jox ci Sénégal ngir mën koo teg loxo gannaaw nag ba nga xamee ni jëkkëri ndaw si def na confrontation ak euh, way takku der ngir ne way takku der yi am ay élément de preuve moom day wax na ni euh, soxnaam sile euh, lu toll ci juróomi at ñi ngi sëy waaye comportement bi mu def tey day bett na ko lool nee na itam comme daw na man dinaa assurer sa responsabilité penal waaye nag il faut que ma dénk leen benn mbir ndaw si de nekkul kër ga gannaaw ba mu lakkee loxoy gune gi daal ba istuwaar ba jub kaw ni gune gi dafa sàcc téeméeram ca la ni fes ni menteñ nee na sax léeg-léeg da koy calmer ndax gisoon na façon bi muy éduquer xale bi mettre ko ci ay pression xale bi di jooy amul jàmm mu dema dema dema dema dem nag ba lakki loxoom fa muy waxee loolu rek ndeysaan ca la rangoña wadd jëkkër ji di bësëx bësëxi di jooy di jooy ndax xool bu jeex ak naqaru àdduna ci kaw circonstance boobu mbokk yi nag ca la ñu daal yóbbu jëkkër ji ca sant no ca la yóbbu xale bi ca sant nabi sukeer foofa noonu nag dañ ko bëgg a faj loxo yu metti ndax xoolal xale bi mënatut a lekk mënatut a naan loxo yaa ngi rocciku ba xonk cur bàyyi ma ngi xel li rangooñ ndax jëf ju ñaaw ji yaay ji def te nag policier yi daal commissariat urbain daal ni digal way docteur yi ñu yóbbu gune gi ca fa nga xam ni moo di l'hôpital général Idrissa Pouye ba na ca Grand Yoff ngir nag ñu gën a saytu nan la ñuy faje gune gi ndax metti na waaye ñu délivrer leen ab rapport circonstancié boo xam ne day ànd ak certificat médical ci kaw loolu nag ci la xale su góor si ndeysaan di wuyeeti es ba toll ci ñeenti at ñu daal di koy yóbbu ca centre Gindi ba ne ca front de terre gannaaw ban ko fajee ngir nag ñu mën koo toppatoo ay photo yu doy mbokk yi ñu daal di koy dugal ci dossier bi mu yéeme loolu nga gis loxoy xale bi rek képp koo gis rek keroog xel nga ay rangooñ nga gis itam appréciation bi ci procureur def ngir ñu gën a wéyal enquête bi ba sanctionné ki def jëf ju metti ji calanu nag defeere bàyyi xale bi ca parki tribunal grande instance bu Dakar yaay ji nga xam ni daw na yaayi xale bi di aaba moom ñu ngi koy wër wër gu metti ba bu ko polis jotee ñu mën koo teg loxo mbokk yi feebaangoo bu yéemee bu doy waar ana xale bu am quatre ans nan la mën a sàcc téeméeri dërëm ba nga tàngal ndox ba mu tàng jër nga jël loxoy xale ba sóob ca mu rocciku ba set wicc da nga ni jigéen nga lii ñaaw na lii doy na waar lii ku ko dégg sakk say nopp ndax da ngay foog ni sax ci ay gént nga ne xoolal am doom ni mu mettee xoolal ëmb ab liir ni mu mettee ak risque yi ci nekk yàlla dogal nga jaar foofu ba mucc muy góor xamoo lu mu mën a doon ëllëg nga ni danga koy éduquer danga koy punir ndax dafa sàcc sa téeméer xale bu am quatre nan la mën a sàcc téeméer ñeenti at nga dafa sàcc sa téeméer xanaa sax bu jëloon sa téeméer amaana am na beneen façon correction lu du tàngal am ndox ba muy jibbi jibbi nga yori loxoom xale bi yoo nga yor ko ba loxo yoroo ci ko nga seppi ko mënatul dara ngay lekk di naan xale bi deux semaines mënta jàllale dara deux semaine nelawut di yooxu kooku jigéen ju ko def rek amoo ëllëg sa yërmande borom kër amoo ëllëg sa yërmande doom bañoon na am doom sax parce que Sénégal boo xoolee ñaata jigéen ñoo fi ne mënuñu am doom fu ne ñu fajoo ji fa ndax nag doom yàlla yàllaa koy joxe du yaafusu boroom kër gi du yaafusu ku jigéen gi yàlla mooy programme ay bantam am na ñoo xam ne fu ne fajoo dinañ fa ci Sénégal ngir mën a bëgg am doom mënuñu am doom am na ci ñoo xam ne sax dañu dem ndeysaan ba découragé jël doomu jàmbur adopté ko ngir bu ñu xëyee rek seen gët yi mën a gis ak gune waa si waa dund yooyu yëpp am fi Guinée ga mu jóge itam ba ñëw Sénégal am loolu amu benn xalaat booy def lu di di torturer sa doom ba mu ne ci musiba ba nit ñi yoole la nga ni fes samp say xel daw waroon ngaa taxaw def nga jëf ju ñaaw da ngaa waroon a risqué daal di jël nag responsabilité pénale bi nga xam ne sa jëkkër ci ngor moo tax mu jël ko parce que daw nga te mooy bàyyi gune gi te yëgut tinut kon faa mu joxe ay responsabilité kon mbokk yi fee baa ngi noonu mu doy waar loolu ñaawati fii la ñuy yem rek ñuy wax ngeen di abonné di partager di aimer di commenter bu ñu ñëwee di man di nettali seen rubrique faits divers yi ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di leen wax jërëjëf bon début de semaine à tous jërë ngeen